la télévision qui sépare la vérité et le néant. Nihao les amis téléspectateurs de DBT TV voilà tey télé DBT TV euh, ak seen émission All Martial Arts ñoo du tey seet si waa taekwondo c'est son grand maître grand maître Diba ceinture noire cinquième dan tey moom lañ seet si woon di fekk fii ak gars yi euh, ak seen entraînement yi xam naa ni moom ci région de Louga nga xamante ni moom moo fi yor li nga xamante ne euh, le taekwondo dëgg yàlla moom muy. Euh, grand maître tey it euh, doon koo xamante ni mën na ni maanaam ak ko am xam-xam la ci li muy def kon tey moom la seesi woon euh, wara a waxtaan ak moom nag ci li nga xamante ni moom lay travailler ak gars yi muy li nga xamante ne mooy taekwondo kon xam naa ko dañuy trava dañuy tàmbali léegi maanaam gis ko pour mën a tàmbali ak moom pour mën a waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom lay entraîner a gars yi fii ci CEDEPS ak seen télévision DBT TV ak seen émission All Martial Art voilà kon xam naa ci noonu la ñuy tàmbalee rek comme que gars yi travailler nañ ba. daal di def retour au calme. ok grand maître ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay ziar bu baax euh, maam bu ñu bëggoon a xam euh, la grand maître euh, Diba ah, ci ñi nga xamante ne maam dañuy dégg tur rek te xamuñu ko loo ñu mënoon a leeral ci loolu. asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw man la maître Mamour Diba. Mamour Diba nag la ñuy wax maître Diba la ñuy wax mais Mamour Diba la. seen dunaa cinquième dan waaw di directeur technique régional taekwondo à Louga. 96 la fi ñëw. loolu de man année boobu man ci laa judd. voilà mu ngoog 96 laa ko indi fii ba mu ñëwee ma créé ko te laa ko taxawal fii ñu tam ko fii CEDEPS ñu fi jigéen laa dogo di ko ibbi saal dem Linguère Daara Kébémer dem toute la région pour taxawal fii li nga xam ne moom mooy taekwondo bi. waaw depuis 98 nag lañu jël nañ fi champion du Sénégal indi ko fi à Louga waaw champion Sénégal 96 lañ ko taxawal. 98 ñu ñu jël champion Sénégal. Euh, lu métti woon nag métti woon trop parce que ku xam parcours taekwondo fii ci Louga xam ne métti na defe naa ne kenn mën na la ci wàll ku mel ni maître Konan Sensei yi. daana plus de 200 ceintures noires génne nañ fi yoo xam ne waaw fii ndax boo seetee Louga moom daanaka nag ay champion fi nekk boo demee karaté bi champion ñoo fa nekk boo demee ci kën fu même chose boo demee ci taekwondo bi même chose mais problème bi mooy sport yooyu yëpp lijjantiwuñ leen waaw lijjantiwuñ saa booy dem pour nga dem ñu jàppale rek yow boo dem topp seen gannaaw dañu bëgg toujours nga leen di saraxu te loolu duñu ko def ñun amul loo xam nii tey dañu gis ne autorité dëkk bi dina ñëw taxawal ci noonu li la ko woon mooy ma seerlu ba mu jëlee championnat bi ñëw nga xam ne tey daanaka mooy moo la ñu wax sa champion moom la parce boo xoolee mu def du mën ay tubaab du mën ñëpp indi médaille bi fii jël champion bi te amul kenn koo xam ne tey mën na taxaw ñëw invité ko wala ñëw jàppale ko pour te dire que ne amul benn autorité bu jóg ñëw sax wax ne kat vraiment gis nañ seen liggéey pour mën a appuyer xale yi pour xale mën a avancer ñoom li ñu war tam tam jàppale xale yi pour ñu mën a avancer loolu mooy développement réew mooy développement région mais région boo xam ne nii saa su nekk ñëpp a ngi croiser les bras seen bopp rek seen bopp man man du ma leen ñun tam suñu bopp lañ fi nekk sport bi ñu am lii la ñu am ku ñëw fii nga ñuy fekk ku dem fii nga ñuy bàyyi ba mu ne ma ñëw fii affaire bi difficile trop damay delluwaat ndax fii xam naa ne moom doxul dem ba ci met kona encore wax ko kona waaye nag duñ nangu kenn nag di yëg suñu bopp loolu duñ ko nangu parce saa su nekk ñun am nañ fulla am nañ fayda boo xam ne saa su nekk ñu ngi teg lépp ci yoon ah waaw sant nañ ci borom bu baax sama sama maam sama caméraman daa mel ni da laa maam mi lay dégg mi ngi mi ngi yëngal bopp bi rek xam naa li wax moom daa daa. daa am solo nekkoon benn photo muy écarté mu ne ko sëñ bi yow lii kañ nga nekkoon na fi mais daa daw nag daa waaw dafa daw. Euh, sëñ Mouhamadou Mbacke. waaw waaw bu ñu moom moom yoroon naa ko. waaw dama ko yoroon individuel. daa ma ko entraîné xale mais maa ngi maa ngi entraîné individuel maa ngi moom. waaw moom dafa mën leen. il est ceinture premier dan. Mhm. waaw il est ceinture noire premier dan ñoom ñi ñëpp moo leen mën loolu xam naa ko man man xam naa ñii ñëpp moo leen mën ci légitime défense technique lépp macha allah. quatre-vingt-treize am nañ coréen bi ñu ñëwoon fii stagiaire la mu ñëwoon fii euh, à Louga te xam naa ne pratiquant nga yow pratiquant dëgg nga yow maître nga sañsey nga yow parce que c'est ça le problème te taxaw nga taxaw nga jeunesse bi taxaw nga sport bi taxaw nga li nga xam ne mooy kën fu bi nga xam ne fii dans la région de Louga waaw di rafetlu nag télé bi vraiment dina leen ñaanal yàlla mu jëm ci kanam ak kanam yokk leen ba ngeen yëg ko suñu borom mun na ko ndax lii lii lii télé yi mag yi duñ ko def duñ ko def duñ nangoo déplacé ñëw seet ñu te pourtant lii mooy lii mooy seen devoir pour ñu def ko kon donc yéen li ngeen def nii da ngeen def daf ngeen du rafet te waaw di sant bu baax a baax a a baax di sant euh, sëñ Mahamadan Mbacké waaw di sant euh, autorité dëkk bi ku mel ni euh, monsieur le maire waaw di ko xamal rek ne ko daal yëf yaa ngi nii BTTV, TV, la télévision qui sépare la vérité et le néant.